alhamdulilah di am mbégte bu baax si topp gi nga xam ne yéen a ngi koy top sunu site web di Wadduha TV tey ni ma ko waxee woon rek émission bu nekk nu jukki ñaar pour ndokkeel leen xam naa di nuyu sëñ Mansour Sall Italie waaye du nuyu sëñ Abdoulaye Sumundu nekk sa Amérique macha allah di nuyu mbokk yépp di leen di siyaara di leen di ñaanal ñu fas yéene comme nanu ko waxe woon rek yéene toujours di partager ak yéen kay fiyaat boo xam ne allah ku ko jëfandikoo rek da nga sa gis njariñ ndax lépp lépp lépp du génn alquran ak sunna du génn xibaada du génn jàng alquran du génn naafila waaye du génn taskir ak taxlil ak takbir te mooy di bàkk yàlla ak di koy sant ak di koy màggal fa tabarakala tey nu indil leen benn yoon boo xam ne ba tey si yoonu latif la boo xam ne yoonu faj ak aajo la nin ko waxee nag amul benn jëmm jooy gis ci àddina te amul aajo moo xam ruwaaba la moo xam président ba moo xam moo xam ministre ba la moo xam gouverneur bu ba si gardien bi sax macha allah du gardien gën a suufee waaye sunu boroom moo moo moo doxalee noonu jamono koo gis rek am na ku mu féete kaw am na ku ko féete kaw fa tabarakallah ko si gis rek aajo ngi si moom imaam mooy lu muy xam ne bëgg na tàggoog moom wala yi loo xam ne bëgg na suñu borom kàttanal ko ba loola ay yegg si fa tabarakalaa lii doon yoon boo xam ne ba tey si ismullahi latif la waaye lay jiitu day ànd ak nafila bi ñaari rakk la rakk bu njëkk bi gannaaw fatiha da def suratu duha danga koy def quarante fois rakk bu njëkk bi ganaaw fatiha quarante suratu wa duha moom ngay def di rakk ñaareel bi gannaaw fatiha nga def alam quarante fois rakk ñaareel bi gannaaw fatiha nga def alam nasrah quarante fois fu tabaarakala soo sëlmalee ismullahi latif ngay def si limu quatre mille quatre cent quarante quatre nu koy tënkee si tamtasu quatre mille quatre cent quarante quatre ñeenti junni ñeenti téeméer ñeent fukk ak ñeent su ko defee nag soo koy liggéey bu fekkee looy bëgg mu sori la la da puus bu dee loo bëgg mu ñëw la da ngay ñoddi ak bu mu si man di doon rek étape boo def comme escalier boo yéeg da ngay def juróom-ñaari xulf wallahu ahad nga ñaan sa soxla gannaaw bi nga defee naafila bi comme nga def kaat def juróom-ñaari suratul ixlaas ñaan sa soxla def 40 def juróom-ñaari xulf wallahu ñaan sa soxla no def 400 def juróom-ñaari xulf wallahu ahad ñaan sa soxla doog def 4000 mille loolu su fekkee fa tabarakallah da ngay ñoddi la sooy wàcc nag fa tabarakallah si mille bi ngay jëkkee teg si 400 bi teg si 40 bi doog see teg 4 mais étape bum mu si doon rek moo xam yéeg la wala wàcc la mooy dangay ngay njëkkee lim bi si suuf jëm sa kaw wala da ngay njëkkee la sa kaw jëm si suuf bu mu si doon rek étape boo def comme escalier boo yéeg da ngay def juróom-ñaari xulf wallahu ahad bu ko defee nga ñaan sa soxla def beneen étape fa tabarakallah suratul ixlaas saar la boo xam ne bu doon ne borom bi am na luñ koy identifier du ne suratul ixlaas la bu doon ne am na dentité ismullahi latif tamit lépp lépp lépp lépp macha allah nit mën na ko fay fekk saa yi ngeneel si ubbeeku si yokkute si wërsëg si barke surtout barke macha allah ndax latif su la wuyusee la bàyyi si yow ka bàyyi ko si kooku ka bàyyi ko ñëpp yàlla da leen di def ni nitu ijaaba waaye yàlla da leen di def macha allah ñu nekk tànneef si maanaam booy liggéey latif lu bari sa sa sa yaram sa suux mu baal si kàddu gi sa deret sa lépp day mujj doon latif balu lu si yow maanaam koo njaboote macha allah day am leeru latif fa tabarakalaa kooku it kamu mu njaboote day am leeru latif fa tabarakalaa loolu mën nañ koy jàngee sine ne soo gisee jamono macha allah la gën lu gën a yàgg rek gën a gën a rafet maanaam mag ñi toujours buñ fi bàyyi ko woon ka fi nekkal mooy doñ ñoom loolu fa tabarakala lépp day dellu si sell ga xam ne selloon nañ ko tudd yàlla goo xam ne doon nañ koy tudd yàlla ba seen lépp lépp lépp lépp day fa tabarakalaa day mujj uh, saf leeru borom bi fa tabarakalaa mu ngi sant tey gërëm xam naa incha allah dinañ ñëwaat ak yéen si yeneen i yoon waaye lii daal yoon la boo xam ne bépp aajo aajo looy ñoddeeg loo dàq bu ne aajo it macha allah lépp luy soxla ku wér rek xam nga loo xam ne yittewoo nga ko nga xam ne kenn rek ko man muy borom bi jalla jalaaluhu su amee lu sa dëgërandi wéetalal yàlla nga naafila ñaare rakk-rakk bu njëkk bi gannaaw fatiha ñeen fukki suratu duha rakk ñaareel bi gannaaw fatiha ñeen fukki alam masrah soo sëlmale nga def ismullahi latif 4444 aqida boo dem nag maanaam étape boo dem da ngay def juróom-ñaari xulf wallahu ahad liñ indi loon tey si seen site web Wadduha TV seen ak seen mbokk Alhaji لوسي جبنو سانتي كو يالا جل جلاله لوسي سفانو نوكي جيغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله